Vai lá. Oh. allahuma buñ fa ñaan yàlla naka borom bi nangu jullit yi yépp nga ka defar limaamu nee na lii Mabdoulaye wax dëggal Serigne Cheikh da ngaa baax yaa du tënkam lu doo sa jaar ba neex ak naqar yaay teew ca ràpp na saan taxawaay bi rafet na foo dem yàgg say mag ñu ne la kàddu gaa ngi noonu kon nan la war a ñaanal wér limaam moom ma koy wax de wallahi ni rabi mu ne ma ñaanal na sama rakk bu baax yal na yàlla guddal sa fan defal ko say mag yëpp e eh, xam naa ni mag yi ñu mu jëkk daan wér li maxtaara da ki neen na doon taxaw jëmm yi dang ni ma rek doon taxaw jëmm yi <laughs> dañu tukki dina ñëw suba incha allah yàlla nu fekk ak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 waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. sànni bi nee na mbokk yi ñu leen ñu tedd nii mi ngi dellooti di leen nuyooti te leen di ñaan ci yàlla sunu jotaay bii ak sunu koor gi yàlla na ko borom mi nangul. nee na sunu jotaay bi yàlla na ko boole sa jotaay yi mu gërëm ya na ñaan sunu waajur xalifatul muslimin sunu baay Mahamadul Maxtaar mu seen am jotaay bi seen Cheikh ne yàlla fi bàyyi bi yàgg te gën a wér amiin nee na ñaan boobu ñaanal xalifa bi yàlla rogalaat ci boole ahlu bayt bi yëpp ci góor a jigéen mag ak na defal ko kilifa diine yëpp sama réew mii di réew Sénégal yàlla fi yàlla dolli jàmm ñaan yàlla mu wàcc jàmm ci ak na wërngal këpp nee na di ziar magam yu baax yi Seydina Limaamu Laahi ni ma ko waxe léegi ñun ñii ñoo ko amel cant gu wér ndax taxawaayam lépp loolu waroon taxawee moom sang bii di magam taxawee na ko taxu mu teewi matal ko kon sang sa rakka moo lay ñaanal nee na yàlla nga fi yàgg lool te gën a wér wax ne amiin amiin yàlla yàlla defal ko sabab yu baax yooyu mu toogal fi nag njaboot neena delluwaat ñaanal sunuy imaam neena li may faral di wax yumbul waaye ku yàlla defal tawfiix dina oyof ci yow te yàlla nag sunu borom bi sag bi ne moo leen yenn nee na ku mu yenn dina la teel ndax yàlla sunu borom sag bi ne mooy fal ku mu fal dina la fooral moom yàlla ku mu moom yàlla dina la fegal waaye nag ku mu fegal nag fàggul mi nee ak cër yoo xam ni bu ko nit boppam te xam na ci cër ya fan kaa séddalee da kay sori waaye lii tànneefu sunu borom bi la nee na wax na ba tey tànn bii tànneef bii tànneef bi yàlla yéeg na la yow ko ndax jumaa ji muy néeg bi yàlla bi ci asamaan yi la nekkoon ca kaw maam Ibrahima Mbengue borom gis bu rëy ba du moom jàkka ji fu mu san toll ci asamaan bi rek mu daal koy signalé plan bag yëpp dafa leeroon ci ñoom waxtaane kaa sunu maam si naa seer wala ba mu tolloo nag si asamaanu adduna bii ñu tiim mu ne ah egsi na de ñu jéer plan ba moo tax ni dañuy tabax tàmbali seen liggéey ak seen plan bi ñu di woon maam say dana leen déedéet bii plan lañ fi def boo leen gamulee ngeen delluwaat ngeen bàyyi plan boobu nag mooy plan moom bii ngeen gis ni muy jàpp nii xam naa xale yi ñun amuñu chance fekk plan bi bi moom la ñu jooju jàkk nag nee na jooju jàkk nag jiite fi yonti yàlla saa sama maam jiite si jàkk ji si di coow bu baax seen saa jiite si jàkk si di leen am maam Alassane mu yiw jiite si jàkk ji jiite si jàkk Sëriñ Allo Seydullah maa ngi yëpp barkeel si néeg bii ma ni jamono doxee kon yéen teg imaam libaas bii jar naa ñaanal jar naa santit yàlla ci loolu kon imaam waaye Sëriñ Cheikh Mbacke ne yéen bi la yàlla yéen yàlla gën a yor itam yow mii ñu ko dénk xam na li la dénk sang bi nee dem yoo ni di ci bayaan dafaa doon farata ndax ñi xamul mën a xam nee na bokkul xool leen fu muy jóge xool leen fu muy jóge ca Cambérène de ca Cambérène de mu sedd mu tàng day ñoom dëgg am fulle yi ci dégg yàlla bi ko ndax responsabilité kullukum aynukum bu masul an riyati kon loolu lu jar a fàttaliku la nit ñi xam imam libaas li mu yenu lal la du lu ndaw la dafa kay jërëjëf waaye sëriñ Cheikh ne jërëjëf imam nga jëm a jeen mu topp sa ginnaaw sa naay te ba ma ko la imam yooyu jërëjëf li mooy diine ci waaye sang bi ne kon daal sant yàlla war nañu alhamdulilah rabbil alamin sang bi ne ñu ngi gërëm mbooleem ku nekk ci biir kër gi ak ku amoon yéene bëgg ñëw te ñëw ak kuy seetaan waaye jërë ngeen jëf yéen Mbaye Sarr jërëjëf sunu mbokku bu diine Lamine Ndiaye jërëjëf Lamine ak ñi ci des ñëpp Mbaye Sarr mii day umpalewul ba tëb yii lii day jii mag la ñuy njëkk a dirigé yii foofu moo nu ci jur leen ci man nu ci it la te yàlla na nga wasaguñu woon fii la xale yi daan toog góor ñi toog jigéen ñi toog ñu taxaw sëriñ Ablaye Sabaay weeru koor fanweeri yére lay jënd.

waaye seen ne kon jàpp naa ne ñun ñii nga xam ne ñu ngi sagal ak tëb yii yal na leen borom bi sagal amiin yal na leen yàlla sagal ne leen amiin sage bi day jërë alhamdulilah ci turu diine ji nag taxaw ngeen dëkk bi ak diine yal na leen yàlla fay amiin nee na su ma di suñuy sët suñuy doom ñu fees place xam nga sama xel fu muy dem alif wal muska wal ibada wal xulbat wa tilwa wa kada nujaba allahu akbar alimatu kama imanaka wal xul wa tafim lan wa kada nujaba la ilaha illallah alimatu waa baax nan laaj taxaya na ki gën a yaru ci mbindéef yi mooy Baay Laay alayhi salaam dëgg la waaye faw mu laaj ki ka yar adaba nii rabbi fa ahsana taadibi lay na yàlla moo ma yar te rafetal na tamit yar bu ma moo tax bàyyi laay seen maam moo gën a yor ñëpp waa bàyyi عليه الصلاة والسلام من ير على كل حال نتا من لا ير لا يحير ألف النسخة والإبادة منا منا جام ير جام ير والقلب والتفلة والعبادة والطب والخلق والخلوة والخلوة طفلا وهكذا نجبه منا أجام يلا منا أجام يلا بمنك تطن وهكذا وهكذا نجباه نجباه نانا غاي واخ ييب في لو jaar waaye moom bokkul ak ñoom moom bokkul ak ñoom lay lay la la moo tax moo tax bu libaas ñag nee bu libaas ñag nee tàmmal nga say gone tàmmal nga say gone ñuy teg ci yoonu yàlla bay mag nee na ko bay islam dama mag loo tàmmal sunu yi ko ba di yoon yaay borom diina tàmmal sunu yi ko ba di yoon yaay borom diina tàmmal sunu yi ko ba di yoon yaay borom diina néegatuñu bàyyi lislaam ñoom gone yi néegatuñoo bàyyi lislaam tàmm nga say gone nag tàmm nga say gone nag mu nga tàmbalee ma nga tàmbalee ba ngay labal moo tax bu leen làmbatu la moo tax bu leen làmbatu de ku bëgg doom ju baax ku bëgg doom ju baax tànnal ko yaay ju baax tànnal ko yaay ju baax ku bëgg doom ju baax ku bëgg doom ju baax tànnal ko baay bu baax tànnal ko baay bu baax tàmmal nga say gone tàmmal nga say gone nan nan koy jig nan koy déggee. ba la batee ndaw si. ba ñu la tamu baax tamu baax. léw mi muy noonu fii. ci Cambérène ci Cambérène. ba la ko mayee. muy sëy duggul ko muur lañ ko muur. topp ko nag topp ko nag. di di si kàr. uti këram. lii de moo fi kër say riir nee na si kër say riir ba ñu teg la ci sa ci sa néeg ba la teg la dugal la sa biir néeg teg sa kaw la amul xaxar nee na amul xaxar déedéet xale yi xamuñu luy xaxar xale yi nee na li muy wax mu leen luy xaxar si kar rek nee na si kar rek ndaw soosa ndaw soosa bu borom këram bu borom këram bu xëyee bu xëyee muy fóot

mu ne sikar sa muy def xale bi nekk ci biiram mu ngay dégg sikar sa di ànd ak moom di sikaram yàlla. Allahu akbar. nee na sikar soosu. moo leen mayoon. moo leen mayoon. mu mat jotee mu mat jotee. xamuñu woon hôpital. maa ngi lay wax lu sew. dañu daan xëy rek dañu daan xëy rek. man la bu kenn génn ndax dafa am kuy wasin. ci wane bi. te boo amee doom. te boo amee doom. ñaari fan. ñaari fan la. te doom na dem Dakar. li xew léegi. li xew léegi. bu leen mbir la. ak li fi xewoon ak li fi xewoon. comme yàlla ak yàlla yi bokk na. xale booba. nee na xale booba. ñu tiim ko. ñu tiim ko. imaam di ko tudd. imaam di ko tudd. wat ko ba mu set. wat ko ba mu set. xanaa xamu leen ne. karaw bu ne. karaw bu ne. bunte la. bunte la. boo xam ne. boo xam ne. mu ne lay lay la la. Coba ini, mungkin juga. Lain lain lain lain boo xamante ni ci musique ci la tàggatee njabootam moo tax bu diraam di musique bu yàgg loo ci wecc lay jànge loo waaye ñun suñu njaboot lay lay la la dina di jànge raam dina di jànge toog dina di jànge jaajëf joo gis góorgóorlu rek moo cay moom lay tekki góorgóorlu leen góorgóorlu leen ndax kenn ci ñun ndax kenn ci ñun kër way juróom bi la dëkk ndax nangu ndax nangu fële nit jóge fële ak manitam andi kër kër bëgg sa kër bàyyi déedéet ndax diggante nangu man de du ko nangu kenn du ko waaye sant leen a wax day am tontu ndax li gën a góor wala kanam. ñii dafa mel ni kanamu de. ah. jërëjëf jërëjëf parce que bi ngeen ngeen gisee loo wax du gannaaw. kenn du gannaaw mooy. Cambérène mooy lu bon lu bon di daal di nekk fii ci yow li fi dëkk. yow li fi dëkk. waroon nangu. waroon nangu. di jëli lu bari. di jëli lu bari. dëkk dëkk la. dëkk bi yëpp. waaye sa bi ne dëkk bi yëpp. yoo xam ne. mandarga la. kër gii di kër bu ci dëkk bi. mandarga la ñu ngi seetaan lu ndaw lu rëy lu ndaw lu rëy ci suñuy bët dafa ndaw waaye la te rafetule ci taaru dëkk bi loolu mooy lan wala ya ca jàmm lay waaw waaye sanga bi ne ñun dañoo am xaw gis na xew jàmmalaay waaye da ngay rus te loola nag ñun ñii ñoo ko mën dindi ku ci am doom ku ci am doom surveiller ko bu dee am vélo fekkee dafa bi téyel vélo du dawloo kaayam waaye sax mi ne ndax ñu ngi seetlu ñun si yàlla tëdd Isa tëdd nii suñu càmmoñ suñ suñu maam tëdd nii suñu ndeyjoor muy almeer yi lu ñaaw loolu lu ñaaw loolu ci diggante almeer yi almoor yi yàlla leer yi di am foofu te ñooña te ñooña yor seen i bët di nu gis ndax lii rafet la ay waay seen bi ne bi ñuy ñaan nag gis ngeen xale yi ku fi bëgg a yàgg formal dëkk bi lépp nag dee su ko wax de ñii xam na li may wax lépp dee su ko wax la dëkk a fan tekki ci dëkk bii formal la dëkk yonti yàlla isa bi billahi bu ko def din fi yàq te loo wute di kaam te na barke kamena taaru ci jërëbi yaa seeti mayi roobu moo ni capitalu bay la laay ñooñu bëggal la maama li maamu laay capitalu lay la laay tijaan mu ni jëmmam ja fàttu na xam nga fàttu nee na xam nga fàttu koo daan gis gisatoo nee na koo daan gis gisatoo ko ay bàttin ba teew na magal ka yow taxul ñu waxal ni ami fukk ba muy jëriñ wane ginnaaw bu ma amee ñeent fukki at di ngeen xam may kan man yoon ci yàlla isa moo waral lii xew-xew Seydina Isa moom la tax moon Njaay sax wax baat bi xam déedéet. lay Modou ñaanu kaay. balaa dinañ ko ko. toog si booy lan. déedéet. xamam ñaanu kaay. matuwaay yàlla séede na ni maa ngi woo sama rakk Bachir ma nga bitim réew sànq laa ko jot moom lu mu ne sang nelawal ma woo dun meeru Cambérène ni ko taxaw leen ci waaye bala naa ak si ñoom ñun ñun ñun ñun nurijal salimata waaye nag ku ko daan def pour maa la sabab ku ko yóbboo ci sa welo kooku dawalukaay mu nangu yi ka leen di fële andi welo di luwe te léegi bi may ñëw am na ku yor moto yëkkati nga ci kaw barke Serigne Ablaye fii buntu kër Limaamu Thiaw barke dem ba dëgg la nee na loolu nekkul moto yëkkati moto bi ci kaw wallaahi wallaahi xam naa ne ci bàyyi xel ku ko dina ko wax bu bàyyi ci yaakaar parce que yéen yonent moo leen yar te war na noo sagal yonent bi ñu yar ci suñuy comportement la ca des nag lu dul sant yàlla dama gu ma dee ci way yu ñu doon way sax nan kuy ñaani paas seetil ma ma njool am ku mani la wala njool ku ñaani baas seetal ma njool way wi dafa ci mag ku ñaani paas ku ñaani paas seetal mooy jàlle gaay yi lay maam Njool maam Njool bu nee saaxibul kaani bu nee saaxibul kaani dañ dëxëñ ay may yëpp ay mayam yëpp ci baat boobu karaw ba pare rek nëpp kenn du maam Njool kenn du maam Njool nëbbam boobu nag nëbbam boobu nag ba tax ñu ne bu ñaani paas seetal ma Njool daf ko wane fii ci àdduna bi dafa jar xam. sang bi ne bi ne xëccoo. bi ne xëccoo suuf si. bi ne dem. lépp dee su ko wax. ndax lii ma tiim caméra bi. keroog bay mu ngi dem. ngannaay bu nit am. yóbbaale ko. maam Seydini maam Seydini suuf sii bu santulaay sant Muse te moom nag ay bokkam la woon mag ñëpp ni day dem ma ngi téye ko fii di ko doo dem nekkate maam Njoon mag ña dem mag ña dem yàgg fa lool yàgg fa lool jékki-jékki ëgg si jékki-jékki ëgg si fekk sang xew li lu xew ni ngeen toog comme ni ñu toogee la mag yi bokk mu ne lu xew mu ne lu xew nu ngeen def loo leen def lu ko xeexoonoo sa turandoo euh, turandoo Seyna Seyna Dia ñu ngi si ginnaaw. ku bari histoire. ku bari histoire. Mamay Sène sax daanaka wax. Góorloo jàmm lay nga bii Seyna Diop. sa maam. nee na sa maam. xuloo na ba pare. xuloo na ba pare. mag ñi daan ko. bu fay daan la. góor di ko xuloo. maa la ko wax. te xoolal. te xoolal. tubaab ba waxee. ba ko tubaab ba waxee. mu ne interprète bi mu ne interprète bi. wax li ma lay wax. wax li ma lay wax. nekk fayu ma gàtt. nekk fayu ma gàtt gàtt. ay la keroog la ñu mës a dégg Moussa. man ngi ni que daan na la moom si. lu ma def lu ma def. yaa saaga yaa saaga. Ah, gërëm yaa saaga. da koy tere mu génne daal ma daal di fay daal ma continué xulóo. Mhm. gis ngeen nii ngeen toogee. gis ngeen nii ngeen toogee. mu ne mag ñi. mu ne mag ñi. lan moo tax xeexu. lan moo tax xeexu leen. naka ma njoon. naka ma njoon. moo tax xeexu. ala ma njoon. ala ma njoon. mu ngi nii toog boobu. mu ngi nii toog daal di boobu si wetu maam si. ma njoon ku la yabal. ma njoon ku la yabal. moom ma njoon ku la yabal. daal di tàng. ma njoon daal di nuur rek. maam Seydi yuuxu. maam Seydi yuuxu. dama ne ku la yabal. ma njoon ku la yabal. musa bi rek. musa bi rek. waaye léegi jiifal nit. waaye léegi jiifal nit. xalaas ne xalaas moo jëmma joo xam ne moo jëmma joo xam ne arme yu mu dugg arrière yu mu dugg kon fa doon dugg ko doon bugg sax yàlla dina ko rus kooku fu mu dem kooku fu mu dem aywa kee lay lay la lay lay la lima wa côté lima wa camɓe ngeen camɓe ngeen seydna isa man jon faage daf kari dama calmeen ndax yow alna yoodu ku doon mugal yàlla jéggal la ndax sa jëmm ji koy ñaani baas seydna man jon yaani jàlle lay lay lay Cambérène gi Cambérène dajé nañu ñaan dajé nañu ñaan da wax ko sama mam jox da wax ko sama mam jox da ngi fi mo leen ba mo ba man ma man ma eh, man ne man ne ngeen di ñaan ngeen di ñaan ma ma sama borom du ko nangu xoolal. dara doxul dara doxul. sëñ mu ko nettali daje. ñu nan leen tuubi. ñoo leen daw daw. ñëw rek boobu. di sanga bi danoo juum de. di ko sëñ Ablaye rek. bàyyi. waaye dañu juum. jéggal ñu. maam joonde ko. doom rus naa la. moom ci jëmmi boppam. moo joxe dog yi. ñaan kat moo ko joxee ba mu àggee ñaan waaye commandoo yoon baa nga sàmmoon yoon baa nga jàmmoon yoon kay xanaa wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu sëriñ di maamu ne namoon nan ko jërëjëf sëriñ Seex nee na dama ko wajee ba rek di ko di ko nemmeeku mu lay laaj situation bi mu daal di ñoom di ko dinaa agsi macha allah yàlla ko yàlla fay yàlla ka borom bi dolli weer amiin yàlla borom bi yokk gën a taxawal sa taxawaay gis lu mag ngi de waaye yàlla moo tax lii nga xare sax noonu rek nañ dëkkoo ak ñoom dëgg la bëgg rek dëkk bi baax bi laay yéen rek sang bi ne yéen rek la ñuy defaral waxoon naa يد الفاتحة يد الناس يد صلاة الفاتحة Samo ala sa njale no

Yeah.